Euh, jërë ngeen jëf euh, yéen sunu mbokk internet bi ñuy suivre di ñuy topp ci suñu site bi saa su nekk ñu koy duppe 221 people tey nag amaat nañ mbégte ak kontaante bu baax a baax tey nag ma fa yéene la dalal benn kilifa di kàngam nga xam ne kenn du ko présenter te ci biir site bi ñu koy tuddee Serigne Moustapha Dieye Serigne Moustapha Dieye nag doon koo xam ne ku yàlla may la ci loo xam ne nit ñaa ngi koy déglu jëmati na li nga xam ne saa su nekk nit ñi ñu ngi koy sàkku si ci moom mu ba ñu gis ci tawféex sëñ Moustapha damay bàyyi nga nuyoo ak mbokku askan bi balaa ñoo dugg ci suñu biir question gën a yaatal. aleykum salaam sëriñ bi sant yàlla. julli ci yenente bi salaay salaam sant sunuy ñaari waajur ak di leen ñaanal yàlla njëggal. yàlla yërëm leen xare leen aljanna ñaanal ko bépp néew bu ne ci biir suuf yàlla neen yàlla yërëm di ñaanal ñi tëdd ci hôpital yi. yàlla na yàlla defal leen tawféex ak ñi tëdd ci biir kër yi te tawat ak ñi koy sax doxaale di ñaan jàmm ci réew mi jàmm ci àdduna bi di ñaanal ñi caabi féete ginnaaw yal na leen yàlla teggi seeni nattu eh, ñàkka dal ñamu dalu lit ñun ñëpp yal nañ ci yàlla musal te na xam ni ndogalu sunu borom la sëriñ bi di nuyu waa internet bi ñuy teewlu ci jamono ju manti doon di nuyu soppe di nuyu noonu di ñaanal soppe di ñaanal noon hmm, yàlla na yàlla defal ñëpp jàmm ndax nee naa ba tey hmm. lu sayduna muhammad am rek daanu ko am te yonent bi amoon na soppe amoon na noon di ziyaar ñëpp di wax salaamaaleykum wa rahmatullah sëriñ bi jërëjëf jërëjëf euh, sëñ Moustapha Dieye am nañ kontaante ak mbégte bu baax ñu nit ñu ngi lay fay bu baax euh, fas yéene naa dalalaat ci site bi comme ni ma ko waxee saa su nekk. ci sa biir nuyoo ci lay sukkandiku am lu ma mën a seppi waxtaane ci. Uh-huh. Euh, ñaan yi nga ne yaa ngi koy defal ñenn ñi sax ndax seeni tawat. ci tawat yooyu dinañ ci delsi ak ni nga leen ci defalee ay ñaan dinañ uh-huh. delsiwaat ci actualité ni muy amee. Uh-huh. ay bës bu dé bu nekk. dinañ delsiwaat ci maanaam tawat yi ndax saa su nekk day delsiwaat ci biir nit ñi. tàmbalee damay tàmbalee ndax xam naa déclaration laa koy jàppe ci mhm. damay ñëw ci sëriñ Bass Abdou Khadre di porte parole lu euh, tarixa murit mhm. def na benn déclaration di doon wax ci li bokk ci émigration clandestine bi mhm. dem na ba am na fu mu wax ay kàddu mel ni dafa surux ndax nit ñi dañ koo jàppee ku juum xam naa ñeen ñi sax ñu ngi naan dinañ xaar peut-être dina defaat beneen déclaration wane ne damaa juum sama biire wax ndaw ñi fi ñuy jëm jaru ko maanaam loraange du la ca fekkee dafa mel ni xaru la mhm. dem na ci sax ba mel ni ci biir wax ji sax ni mu ko waxee mhm. daa mel ni ku ci dee sax doo mooy tuut safara nga jëm mhm. wax jooju nag doon polémique ci biir réew mi fi mu ne nii nit ñu ngi ciy waxtaane sëñ Moustapha Dieye lan moo ci doon sa gis-gis sa en tant que kilifa yow comme ni moom nga sëriñ bi dogalu yàlla balaa nga koy xam na nga xam luy àtte ab dogalu yàlla sëriñ bi nit ki nga xam ni joxoo ko dépense ci këram mhm. fayaloo ko facture mhm. bis bu nekk sax ngorom mayu ko xam na fu nuy deme àdduna bépp jàkkaarloog moom mu man fa ñaan dimbal waaye ngorom mayu ko ko mhm. mu suturloo moo xam dafa àbb moo xam nu mu mënti deme ba am benn ñeent fukki junneem ba juróom ñett fukki junneem sëriñ bi mhm. ak fi àdduna bi tollu nu gis lay dee ca Espagne mhm. di dee ca Italie mhm. di dee ci réew yu bare bare ak lay dee ca Siin bu nit ki demee ba jóg di dem dematul ak sago mi ngi deme ci mu ngor gu diis mi ngi deme it ci wóolu yàlla nu bàyyi xel loolu ndax suuf sii nii dox. Mhm. nanu bàyyi xel ni bu neexoon yàlla mu suruxal ko. ndox mi bu ko neexoon nit di ko doxe nu ko neexee te du këpp. yàlla la mu cay namm moo ko xam. Mhm. man day duma ko teg mukk ci xaru. mukk ci àdduna. ndax koo ci jàpp. Mhm. du ni la dàll yu rafet mooma ma tax a dem. oto bu rafet du moom a tax a dem. du kër gu rafet a ma tax a dem. dëgg sama yaay ngi yor nangami location. waaw te yow miy interprété mosoo ko laaj walla masul la laaj ñi la ni alma foofu ñeenti téeméer. jàmbat lay taw yaa xam ko mën a mm, waaw waaw mm, kay. te xam nga ni sax léeg-léeg nga jàkkaarloog moom xam ni mi ngi koy. dund. sëriñ bi ñaata nga gis ci borom huitième étage yoo xam ne ñi ngi tiim boroomi geng bëri na mi ngi ci réew mi bëri na tarkal ñaata nit la ñuy jël nu yor loo xam ni duñu ko jeexal ba ba ni sàngoo suuf te ñi ngi leen koy jël te duñ leen wax mukk ni doy na baa buñ leen ko joxee nu takkaat ko war a wër réew mi di ko ci séddale kenn defu ko mhm, mhm. ñi ngi xëllantoo ay addunay kër mhm. ay addunay oto ay addunay suuf kooku nag ñépp ci borom barke yi nga xam ni tegunu seenu barke ci delloo yàlla njukkal te delloo yàlla njukkal mooy loo am delloo war ko ci jaami yàlla yi man de ñii di dem ci géej hmm. ñemewuma ko sax ci àdduna naan danoo xaru dama ko ñemewul te nee naa la cause yii ma la wax a tax man dama jàpp ni hmm. ku ni leen jàkk xool leen te nga am xol bu hmm. yaatu am yërmande am yéene danga gis ci ñoom leneen lu bokkul ak xaru lenn daal laa xam ni sëriñ bi. Mhm. war nañ leen ko dimbalee. Mhm. mooy responsabilité ci moodu moodu ya fa nekk. nu génn wax ak ndaw ñi. dafa jot xam nañu la fa nekk. Mhm. te bu nu waxee ndaw ñi daanu dégg. am nay jamono bu nu daan wax ak ndaw ñi ndaw ñi dañuy yaakaar ni danoo soxor. waaye fii nu toll nii. réew yi ci boppam ci confinement yi nu nekk ak lii nu dal nii. réew yi amul dara. ñetti mbir a fa am. yor say këyit di liggéey benn baa boo doon jaay moom jaay amatul Europe <laughs> jaay amatu fa mm. kon bu dee bu dee yooyu mi ngi am nag mm. kilifa bu génnee ak kilifa goo mënti doon ahlu Tuuba Tiwaawan Njaasaan Laayeen fu mënti doon mm-hmm. njëkkal wax ak borom réew mi wax ji sax bu la neexee xam nga lu waa réew mi war a am ci yow mm-hmm. woo waxtaan naag boroom réew mi loo xam ni sax de man ak moom waxtaan nanu ko waaye yéen ndaw ñi laay ñaan ndax xam naa su ma waxee ak yéen dangeen ngeen nu dégg bàyyi leen gaal yi ngeen ni dem mhm. ndax Sëriñ Tuubaa rek moom ngeen gëm moom rek moom ngeen bëgg Alaaji Maalik rek ngeen gëm moom rek moom ngeen bëgg yénti yàlla Muhammad rek ngeen gëm ndax moo njëkk sax balaa nii wax ñiin wax ndax ñii ay jaamam lanu ndax ñoo ko jaamoo ñoom su kaa dégg mhm. su loolu amee dana am ñu ci am dégg-dégg ba di ci déggale ñeneen. am na looy wax nit xol ba day sore. ndeysaan. Mhm. ba pare da ngay xoos ngëm-ngëmam. Mhm. ndax li mu jàpp ba mu taral ko dee sëriñ bi. deew a gën a jafe. ngëm-ngëmu dee moo mett ma fay juróom-ñett fukki junni di ko jëjënd dee fu mu am. <laughs> wallahi xalaatoo de. dinaa dellusi ci ndaw yi sëñ Moustapha. <laughs> ndax euh, du ma ne dinaa ci dellusi. Mm-hmm. dee bi metti na. ni ñu toppee mbëkk bi fi mu ne nii metti na. mais toog bi toog bi ci lan la ñuy toog lan moo leen mën a pousse fii ba ñu toog fi aussi ndax metti na de ci lan la ñuy toog ndax dooy toog dina am ci loo xam ne di nga ci mën a jàpp nga mën cee toog. waa xam nga tey ndaw ñi. Mm-hmm. am na ñuy bale ci mbedd yi. ni leen ñu fay ñeenti téeméer. am na ñu koy jot am na sax ñu ko dul jot. ci li ma jàpp rek dama analyser mën nañ leen fay lu ko raw ndax kenn warul wax sax fay jaamur. Mhm. damay analyser rek. waaye am na ñoo xam ni boo gisee bi confirmation bi amee ba jeex sàcc gi bare. Mhm. na ñoo xam ne xamuñu luy sàcc. Mhm. xamuñu la moo leen sonal. <laughs> dañu leen fekkoon ci marché yu ni jaayee. déggatu nu ñaata ba pare nu boobu seeni bagaas ni leen waratu leen fi toog te ñu ngi ci confinement yaa ngi leen di dugal ci loo xam ni xamoo ko woppu màggat bu amee mm-hmm. bul jàpp ni dangay xëcc rek loxo baa tànk de foo xëcc rek dangay gaañ danga koy leewu <laughs> taawu ko tëral ko xel mi mën a dal fii nu toll état bi mm-hmm. milliards yi muy jël tarkalla may ma foofu sax teg fa sa loxo tuuti ma mën a samp sama question mhm. ci nguur gi foofu noonu ñu des fa ñu yaatal tuuti njëkkanteeg suñu waxtu mhm. ndax amul ci benn part de responsable boo xam ne moo koy moo koy yelloo ak ndaw yi waroon na mhm. jël yéen mesures yi ndax koy jël xaas bu dul jeex di koy teg ci benn mën naa ne benn ministre laa ko mën a waxee sax mbaa comme président lañ ko mën a jàppee lu tolloo ci juróom-ñeent eh, millions nga koy jox kenn lu tolloo euh, euh, milliards budget nga koy joxe ay juróom-ñetti xaw ma lan ay vingt kilos ni yëpp. Mhm. ndax xajut ci ndaw yi. waaw sax bu nu ko yóbboo ci minister yi rekk sax dafay ndaw sëriñ bi. Mhm. ba ci këru diine yi. Mhm. ba ci këru diine yi. ay milliards waru fa dem. Idrissa Seck. waaw gis nga liñ ko jox. waaw xam nga tey. lu mel ni Idrissa Seck. ci réew mi la bokk. ndawal réew mi la. waaye ñetti wax da ko waxoon. Hmm. bu ma décret di nome bokkatuma ci. Mhm. wala nii ak nii. dafa leer. wax jooju teggeeku na bu yàgg. Mhm. te ay nit di ko fett sul ak li yàlla wax ci jël engagement. Mhm. ak wax sa waxi dëgg. ba pare di fooye wax ji nga ne xam nga alxuraan ak li alxuraan wax <laughs> benn. ñaareel bi ci tegu. fi nu la teg xanaa boo siggee sa xel mi du daw yaa ni woon dañ ko waroon supprimer waaw lu mu war a supprimer loo fay def bay accepter baa di agiter doy na war sa ngor moo la warul may foofu mhm. réew mi bu sooxee yorul ay tànk kese yor na bopp yor na loxo li nga ni woon kii buñ la ko dee jox nga ni mukk ci àdduna mhm. ndaxte fa mu toog du may doxal réew mi de ndax moo ni loolu te moom am na expérience réew moo ni loolu amul njëriñ ci réew mi te bu ko waxee nu gëm ko ba ñépp ba ko ñépp layalee ni réew mi bëgg a suux mu bëgg liggéeyal réew mi xaw ma dégg nga wax jéem dee dafa leer nañ mhm. kon milliards yooyu mhm. man système mu politique laa ko jàppe ci investissement boo xam ni ëllëg ngir su leneen xewee nag ma sauvé. <laughs> tarkalla jërëjëf acca ci. kon amul benn sens. am na solo ci assemblée dañu fay tëgg rek. Mhm. dañu fay tënk tuuti rek. Mhm. ak ni muy doxee. Mhm. lan nga ci gis ak lan nga fa bëgg a àddu ñu jàll. assemblée li nu waroon coow mooy. kilifa yii di wax lu leen neex ba pare wëlbatiku mel ni du ñoom. te nu nekk ci biir gouvernement bi lanu waroon di xeex di ko xuloo baa di ko voté ban marcé dee ndax kilifa gu jiite te dul wax dëgg sëriñ bi danger la mhm. mi ngi mel ni nit ku amee oto di ko fooyee xam nga nu assemblée coow mm. ndaw yi dee ci gaal gi mhm. jar na nu xeex ba dee xam nga lan assemblée mu coow mm. tolluwaayu réew mi <laughs> fii mu toll nii xam nga fan la war a coow. Mm. fii nu toll day ku xeex saaga ci réew mi. Mm. daan ci ànd ak yow ndax réew mi laaj na dóorante laaj na saagante laaj na lépp ngir mu mën a jaar yoon. waaw. Mm-hmm. ndax danoo gëlëm sëriñ bi. Ah, xamata fu kon nag fii la ensemble toll. waaye ñëpp a ngi ni tekk xaw na ma jaaxal nag. dañoo gëlëm ñëpp a ngi tëlli tëlli mm-hmm. mel ni kañ a bëccëg fi mu ne nii mm-hmm. moom doy na waar kenn xamut fan ngay jublu. aja damay ñëw ñu gën a des ñu yaatal ba léegi damay dellusiwaat ci li xew ci jamono bi ndax man moom. Mm-hmm. ku mu yéemut it man yéem na ma. Mm-hmm. Mm-hmm. nit koy dox. di dund dara jotu ko ñuy ñuy faat nit ñi rek dama ci jël exemple ko ci mel ni Golbert Diagne yàggut dara. gis nga euh, démb rek. sini ñaari président ancien président laay wax. Euh, sini maam Abdoulaye Wade ndax noonu laa ko mën a waxe waxee. du Diouf. gis nga ko. Euh, benn mën naa ne benn nu ma ko mën a tee waxee sax. benn rajo mbaa benn télévision bu mag mhm. boo xam ne mu di RFI mhm. nga xam ni li ci ëpp moom la ñuy bàyyi xel mhm. ak ni mu tollu dayoom ak niveau am di joxe ay fausse information kon ñun dafa mel ni Sénégal yu bëri mu ngi koy def. foop mën naa ne foofu la koy du demee ba gis ñi ko sut di koy def. lu leen neex ñoom site yi dinañ ko def yéen télévision dinañ ko def. ndax lii lu mel ni RFI war nay joxe ay fausse information yu mel nii ak ni mu toll. rey nit nag laa wax de. waaw waa xam nga sëriñ bi fi réew mi fii nu toll sax laa la wax yow lii nga yëg am na xeetu rey gu ni euh, faat léegi moo gën a yéeme. Hmm? waaw. loo wax li waaw. waxoo jàmm de. waaw non ndax tey sëriñ bi. Hmm. am na lu ñuy teg ci deru nit koo xam ni moom jàpp na ni faatu na bu yàgg. Abdoulaye Wade lii nuy wax ci moom. di ko hmm. di ko tàgge te amoon na ci alaaji Abdul Aziz. <laughs> mel na ma. mu man fekk naa ko. amoon na te Seydi Mouhamadul Mansour si borom daara ji am na ci dut kenn mbay mii yàggul dara ni nu faatu na te amul yàlla na fi yàgg te ñun xaw ma fu ñu am na fi ñeneen sëriñ bi nee naa la fii nu toll nit ñi bëgg lu nu wax bay wax lu nu xamut waaw bëgg bës tax na ngay rey ku deewut waaw loolu xeetu nooneel da cee am <laughs> gu rëy sax ñenn ñi nag dañu lay sànni xeer dalut nu sànni la paaka dalut nu sànni la leneen dalut dañ lay tegal jàkk man mii sax man miis di wax ak yow sax ah. war naa xalaat ni suba naa gis ci internet bi rek ay rangooñ yuy wadde ñun sëñ ma Faye jéye de loo ci ma da ala kulli du jikko ju rafet nag bu dee jamono yi du jikko ju rafet te nag rey ku deewul boo moytuwul jiitu ko yéen ñi nga xam ne seen àll dafa xóot mhm. tu ngeen xam lu bëri. lan la ci alxuraan wax kon mbaa lan lan nga. ci a yàlla li mu wax. xam nga lan la sunu borom wax. Hmm. fatabayyanu. nee na bu leen information. bu leen tëb tëb wax nii de. saytu leen ko saytu leen ko. leerlu leen ko ba mu leer leen <laughs> ngeen koy soogay wax. te xanaa xamoo nit léeg sax da nga xam ni lii dëgg la. Hmm. te balaa nga koy wax da nga ko war seetaat. moo waral yàlla. bëñ yi nduppur sàq mi rek de mhm. làmmiñ moo doy waar <laughs> tax sunu borom yéeme loolu ndeysaan ndeysaan <laughs> jërëjëf jërëjëf euh, sëñ Moustapha Dieye am na solo ci ponk yooyu xam naa balaa ñoo tàmbee ngoj rek dañu am lu ñu ñëw ñu jéem ci waxtaane mhm. jëmale ko ci jaam yàlla yi acca dama ñëw ci sëy yi nga xam ne jamono ji léegi fa sëy de mën naa yomb mais de dañuy teel a tas mhm. loolu problème la sëy yi ni ñuy gaaw a tase lan moo ko waral sëñ Moustapha waaw sëriñ bi fi mu nit yéeg ginne yéeg cat yéeg yépp danoo jaxasoo hmm? waaw fi mu toll kenn mënu ràññee dara nit day jàng ba dee hmm. nga toog ba ci yàgg yaay ja woo ni la sama doom ji léegi day waxtu hmm, léegi day def ñoo kenn xamut waaw jigéen di sëy bëgg sëy bi bay jooytu sëy bi ba góor gi takk sëy bi mu sant ci bég ci ànd ceeg lu dul jeex nag mhm. ci bégte mhm. dem ba yegg mu mel ni dañu ko tegal xabtal mhm. ba pare da ciy boole waxtaan di waxtu rekk ay détail nu la jara coow mu coow nu la jarul coow mu coow waaje it mel ni ndaw si moom ab jinne la gis wala leneen ba waajee du ko mën a muñal dara. Mhm. mu doon loo xam ne nag ay bagages la. dogguma la sax am na ci ñu siiw. ñoo mhm. xamante ne woo nañ ma. waaw naan ma suñu sëy bi. waaw neex na lu ne am na ci. Mhm. fu ne ñëpp mhm. xam nañ ko. mais fi mu ne nii. boo boobaak léegi dafa mel ni loo xam ne day yëngantu. nit ñu siiw ñoo xam ne ñu ne la seen sëy bi neexee. mais fi dafa mel ni coow ak lu kenn xamul daal moo nekk ci biir. waaw xam nga mu ngi sax euh, tas mën na ci am ah sëy bu. xam nga léeg-léeg ga ñu siiw ñooñu. Hmm. da ngay am sax euh, gêne pour wax ci ndax danga nga cee xam lu bare. <laughs> waaye da ngay am gêne pour wax ci ndaxte na muy demee moo tax. man nee naa la. sëy yu bari fii nu toll nii. jiw am na jëkkër daal mën na am. waaw waaye nag moom tas gi moom. sëy bi moom balaa muy am da nga yëg ay weeri weer. tas gi nag mën na dem ay ati at pour nga koy soog a yëg. Mm-hmm. te fekk am na sax. bu yàgg-yàgg <laughs> doy <laughs> waaw waaye mbir la mhm. affaire la ba pare nit ñi léegi danoo yàkkamti dugg ci mbir te duñu waajal seen bopp mhm. li maam yi daan def ni naan maam yi danoo mageeg danoo démbe mhm. démb joojoo tax nu mën a fekk démb fekk tey ndaw ñi ne gëmatunu yooyu léeg-léeg am na hôtel booy tàbbi rek booy ñëw sa kër dootoo am jàmm. roy dàq bi moo indi loolu lépp. waaw. Mhm. benn laa la wax de mi ngi noonu. ñaareel bi ci tegu lee leenu takka la nga war dàq àndaale waa ji waa ji dàq sa àndaale xoolul leen ci loolu dara. Mhm. te gudul maytu ñett ñi sëy yu tos doo dañ ak moom. jabar ju sangu ci hadus ba pare tooy ñëw tafu sa kaw gaaw na ci tas sëy. Mhm. ak la waaw beneen bi si tegu mooy. Mhm. Ah, di dagg say wee rawatina sa jabar di la ko daggal soo paree rek sànni fu la neex. gaaw na ci tas sëy. beneen bi si tegu mooy. Mhm. seen kawar bu manti doon ci kaw ba ci suuf. Mhm. fu leen neex bàyyi. gaaw na ci tas sëy. foofu laa yem ak eh, yeneen ak yeneen tuwaarkaal tuwaarkaal. <laughs> jërëjëf acca <laughs> ah. kon ah. li mu leeral mm-hmm. foofu kon dee leen ci bàyyi xel ngeen mm-hmm. ci euh, fàggandiko bu baax di koy mm-hmm. sàmm bu baax. acca sëñ Moustapha damay ñëw ci loo xam ne lu bëri dañ ci coow di ci waxtaane xam naa nag jaaxal na ñi. jaaxal na nit ñi trop trop trop trop trop rawatina waa bitim réew nga xam ne ku ci dugg ci ponk boobu rek. dañ lay bàyyi jox la nopp ba fee ngay daaneel. mu di rab ak jinne lan mooy rab ak jinne ak lan moo leen wuutale ñoom ñaar. rab mooy jinne jinne mooy rab. tarkalla ngeen dégg de. rab turu wolof la. jinne la alxuraan indi. alxuraan wax ni sorewul de. xule uhiya ilayya annahu stamaa nafarun minal jinni saaru jinne rek la. mag ñi sax dañu naan bul koy jàng guddi. Ah, man mën ngay gént ay jinne dégg nga ba tay yi ci fàlla xeeg naasi minal jinnati wan naasi <laughs> jinni jinne la naasi doomi aadama la <laughs> yàlla wax feneen ni nit ak jinne wàcceew ma leen lu dul nu jaamu ma mhm. ñoom ñoom ñoo fi am xam nga lan mooy sunu différence mm. fu ne la ni am kawar ñoom léeg ma dégg cooma naan jinneeg rab du benn rabay jinni jinneeg rab <laughs> benn la be mi ngi mel ni rek dina dañu lay wax Babacar di la wax beneen tur mhm. benn jëmm bi la langage yi rek ñoo wuute yoo mhm. waaye bi alxuraan wax moo siiw jinne la alxuraan wax alxuraan boo ko wëree ba mu jeex amul rab mhm. wolof moo indi langaasu rab ndax jinne mën na maa jox pouvoir rab jox ma pouvoir ni ma dégg sëriñ si di koy wax. waaw ku ne ci ñoom mën na maa jox pouvoir. jinne moo lay jox pouvoir nee naa la jëmmi jinne mooy rab. Ah. déggoo ma benn. <laughs> mu gën a leer rek moo tax xoru question yooyu di gën a dellusiwaat. waaw mën naa ci avancer waaw. mu ngoog benn la. Mhm. yenn jëmm ji la dafa yor ñaari tur rek. kon leer na tarkal. day joxe pouvoir. Mhm. waaye da koy nangu nu mu ko soobee. day jàppante ak yow dangay faj nit moo bàyyee la ak ay rabam ngay jàppanteeg ay rabam mm-hmm. moo tax sëriñ day saraxe sëriñ day wut ay dogam ayatul kursi yu da ci war def ay dog yu takku mm-hmm. ndax léeg-léeg nga encaissé lu lay bëgg a encaissé yow eh, waaw te diggal génnul de mm-hmm. rab bii ma lay wax walla jinne jii ma lay wax dalay may nag léeg nag gaa ñi wax ni jinne leen ni may loo xam ni boo xoolee xam ni lii du alalu jinné jinne du may lu màggat kaay ma wax la mm. déedéet ku bokki jaaro mu xomaag ni la jinnee la ko may amut ku bokki xaalis mu xomaag ni la jinnee ma ko may amut lu garaaw laa lay wax <laughs> déggoo ma de jinne boo déggook moom dëgg hmm. du ngeen mbapat du ngeen bëri fa nga yam loo lay yam nu ëpp nag ñetti yoon waaw ñu del si waat ci pouvoir bi muy maye mhm. pouvoir bi muy maye rokk mi rokk la wala maanaam euh, su la joxee daa am loo koy joxaat ah. wala ay sacrifice dafa ne ci biir bu baax wala mën na laa may te du am lu mu jël ci yow waa xam nga tey jinne mhm. am na ñoo xam ne ni nga dégg alxuraan noonu la déggal alxuraan am ñoo xam dañ naan la man man naa def li nga bëgg waaye sàngara nga may dem wutali ma fekk si la sa ñaan gi nga bëgg <laughs> waaw am koo xam ni danaan la ah. booy booy ñaanal nit sax ci yaasin nii ci wàllu rab hmm. ni koy jànge la ko jinni ji di jànge danaan la xoolal weneen yoon wi yaasin bi gënoo ma ko mokkal <laughs> léegi diggante boobu nag am na jinne yoo xam ne deret rek moom la ñuy laaj moo waral léeg-léeg nawet di tollu fenn nu war di ko waaw. xanaa deretu am mala boobu moo war déedéet doomi aadama yi moo waral um, autoroute à péage yi see xew moo waral accident yi da nga yaakaar dafa war a tëb tëb jóg. <laughs> fii nag am na ay béréb yu jinne ne ab bagaay. fii nii Ndakaaru. monument bii la fa ci jinne kenn xam nu mu toll. màggatum jinne boo ko bëggee xam demal Tëngéej tubaab jalaaw yéen. moo waral da ngay gis mbiir buy xar bay bëgg yegg waaye ay bagage la du ma sa gaaw a daan. <laughs> Eh, jërëjëf. Ah. jërëjëf sëñ Moustapha acca am na solo. xam naa foofu ak ya muy def nag. Mhm. Mhm. ak ya def. tarkal ah. xam naa am na solo foofu dama koy mhm. tënk beneen yoon ma ñëw ñu gël gën cee dellusi pour yaatal yéen ñi nga xam ne yéen ngi bàyyi site bi di 221 people. acca dañuy jeexale ci mbirum néew kàttan di ngóora nga xam ne bëri na jamono ji ñu toll nii. kër goo dugg lu amut ñaari te benn bëgg faam de mbaa mu fay waaje kii xaw ma lan moo ko ndi nag. lii nu doon waxtaane danu koy def léeg dangay da ngay takk soxna. Hmm. mu rab yu am doole. sa kàttan lay njëkk a wàññi. benn te am nga ñaari soxna mosoo yi sentir loolu nga dem ba am soxna di ko yëg. ñaareel bi ci tegu. Hmm. am na saafara nag ci alxuraan. faatiha da koy faj faj gu doy waar. ci daqaar ak ci yeneen. Euh, néew kàttan ki am vingt cinq ans. trente di ko jàmbat. Hmm. ñaar léeg-léeg néew kàttan sax dañuy yaakaar ñàkk ba ñu jug rek. am na ñoo xam ni dañuy dem ba war a séq ak soxna si waaye du ñu def ay seconde hmm. loolu néew kàttan la. xam nga bokkul nag sax ñàkkagul bañ jóg walla bu jógee du war a mel na mu war a mel. ndoxum siti gu metti da koy def. Hmm. émur rëyit gu metti da koy def. <laughs> te ay bànqaas la ci moom xam nga niw kàttan stress gu dul jeex da koy def suukar jabet gu metti da koy def am na saafara nag waaye nit mën na fexe ba du ko dal sooy bëgg sooy bañ néew kàttan del moytu ataay ju foor ataay ju foor baaxut oh, <laughs> waaw gënut nag waaw gënut lu mu yàgg-yàgg danga ko jàmbat booy bañ néew kàttan dëgg del moytu léeg ndox mu sedd torop gënut del bàyyi pour mu dal tuuti gënut ak yeneen ñaa cee nekk moo tax sëriñ bi am nay saafara nag waaye ñi muy dal daal ñu ci bari mën na ñàkk nit mën nga dund soixante-dix ans te xale bi am vingt-cinq ans yaa koy gën a wóorle am pagaay ampagaay mhm. moo tax fi nga toog la toog di la jàmbal nañ lay jàmbal ba nga ci sentir sa bopp. jërëjëf mi ngi noonu tubaarkaat jërëjëf acca kon yéen ñiy dégg sëñ Moustapha Dieye di ngeen am mhm. numéro téléphone am ci barre d'écran bi muy daw noonu. Mhm. acca kon fexe leen euh, jaante ngeen gaawtu mu ngeen ñëw mu jàmbal leen. mbaa ngeen dégganteek moom mu jàmbal leen sëñ Moustapha acca cant ak ngërëm ñeel na la lan ngay tàggatoo. waa li may tàggatoo mooy di jaale jaam yi dee ci géej gi. di ñi demoon te yàlla dimbali leen ba nu yegsi di masawu waajur yi mhm. ak di leen ñaanal yeen mhm. yàlla defal leen ndam ndax ñi leen di bàyyi xel di leen ñaanal bare na mhm. te ñu ngi ni dimbali it bare na te xëy na sax yëgu leen ko noonu waaye daal wax ni na njiitu réew mi gëna dimmaliwaat ndax sa ndawi réew bu ñépp a deewee mhm. réew maa ngay suux mhm. ndax ndaw ñee war a réew mi ëllëg tam gis nga mhm. njiitu réew mi bu naan sama yoon newu ci wala li ñuy wax ay dëgg ëllëg yowmal xiyaam mënul jéggi yàlla du ko laaj benn sëriñ ak benn kilifa. Mhm. ak benn njiit. mënul mhm. tere ba li yàlla war a laaj ci moom mu laaj ko na bàyyi xel loolu rek. Mhm. ngir mën a dimbali jaam yi ndaxte njaboot gi ci këram. mooy njabootam gi ci mbedd mi. ndax njaboot gi ci këram mënuñu ko fal. te yàlla ñépp la ko jiiteloo di sant di gërëm di wax salaamaaleykum wa rahmatullah.